Abdoul Aziz Ndiaye mii taxaw Touba dañ koo gërëm Tiwaawan ga mu bokk Mawlaay Abdoul Aziz Al Amin suñu sëriñ dafa am fu mu ko tegoon bërki démb la jóge fii ci xadara bu tëddi bii sëriñ Cissé mën na ci seede teraanga yi muy def ci këru diine yi di ko tasaare ngir lislaam jëm kanam indi na ko fii ci Medina Baye indi na ko ci Léona dem na Ndiassane bërki démb mais li ñuy wax naan juróom yi nga xam ne koo tënk ak ku mën a gis moom Abdoul ci turam laay wax mooy képp comme gis nga xam ne juróom yi nekk na ci yow nga xam ni am nga fulla ba kenn du la fowee am nga xam-xam ba kenn du la nax am nga fit jël ses responsabilités pour gérer sa destinée réew ba kenn du la xabal nga daw nga doylu ba kenn du la jënd wéeru am kilifa gu mat kilifa ba kenn du la ba max nga daanu Abdou Aziz Ndiaye nga yëg ko nga ñàkk ko yëg def na la xarit def na la soppe def na la collaborateur mais damaa gis ci sa biir staff suma xarit suñu mbokk bi mu duggee ma gis ko dama ne ah Baye Ciss day naa ni mi ngi ci li muy liggéey gëm naa ni CAR dana jëm ci kanam mais bu amee coordonnateur bu mel nii yaakaar naa ni suñu xel ñu ñëpp war naa mën a gën a dal Abdoul Aziz nag nee na lu olof yi naan dompet sax ci sot la bokk moo tax le huit jub si mu ni lépp lu mu jàpp dina ko bàyyi malgré coono yi ñu am ci gàmm gi ak yeneen i action yu koy xaar mais dañuy lu mën a xew tey dina ñëw Kaolack àndandoo ak yow indi sa modeste participation lii asakay yéeneem rek laa ko mën a tuddee pour que bis bii nga xam ne da ngay accueillir un monde fou nga xam ñi la sop à travers le Sénégal nga xam ñi nga topp à travers Saloum ak aduna bi aduna bëpp wara xaar bis bobu ngay jàppale président de l'espoir mu ni na ñëw tay indi sa participation Li mo nekkoon kàddu yi nga xam ne damoon naa ko yëkkati ci turu délégation bi nga xam ni moom lañu andal